gi fii ci Daaru Xudus ci bayti ci wàccaayu guddi gu sell gi ñu dëgmal di eh, bis bi Cheikh Moustapha jëréwul wayjuru ba njaareem indi ko Touba te muy bis mu dëkkaaleeg boroom li ngeen ko eh, waxe ba tey ñuy wéyal jotaay yooyu toog ak sëriñ Fallou Ndiaye eh, di borom xam-xam di kenn ci kër gi su ko defee dañ koy bàyyi moom it mu nuyoo daal di présenté wu daal di ñu daal di dugg moom ci jotaay bi kon sëriñ Fallou bisimilah nga nuyoog mbokk yi nuyu seetaan. asalaamaaleykum wa rahmatullahi teewlu ñu ngi ñëpp te di leen siyaare tey jiital ci nuyoo beeg siyaar bi sëriñ Muhammadinil Muntaqa di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàggal ko lool ci kanamu njaboot ko sëriñ Tuubaa waaye di siyaar bu baax a baax borom ëtt bi di sëriñ Ahmadul Muxtaar di ñaan yàlla yokk ko kàttan ak ba liggéey bi nga xam ne moom lay taxawu ci liggéeyab Cheikh Moustapha bi mu taxawa ko nam ko bëggee te ànd ak taalibe yëpp ñu ngi nuyu taalibe yëpp di nuyu jullit ñëpp di nuyu wëllëre yëpp incha allah. jërëjëf Serigne Fallou ci nuyoo bu am solo bi te matale xam naa kon mbokk yi ni ngeen ko waxee tomb bi ñu bëgg ànd eh, jëm ci eh, taxawaay bi nga xam ne Cheikh Abdou Moustapha taxawee na ko eh, ginnaaw wàccu Serigne bi xam naa nag bu ñu nee wàccu Serigne bi dañuy daal di dem feexa ci na boori njaareem. ndax ku nekk xam ne dafa la sëriñ bi euh, euh, dëkkaale ak boroomam taxawaay bi Cheikh Moustapha taxawee jëlee ko njaareem indi ko Tuubaa euh, loolu nga dem dukkal ñu tuuti rek incha allah su ko defee ginnaaw bu loolu passé ñu door a jàll ci taxawaayu sëriñ bi ak taxawaayu Cheikh Moustapha ginnaaw jébbal borom gi bi mu ko jébbal boroomam. Cheikh Mouhamadul Moustapha day moom waxtaane ko rek mm-hmm. xajul ci. ayub bis walla weer wala mu at ngir jëmmi taxawaay bu rëy bi nga xam ne moom laa man taxawaay boobu nag su fekkoon ne da ko taxaw sax ginnaaw sëriñ bi rekk doon na day sëkk waaye ku nekk xam na ne aman na ay taxawaay yu solo ci nekkuk sëriñ bi ànd ak moom liggéey boobu yàlla mi nga xam ne nag moom mooy dogal lu ko sob te wàccab dogalam ci sëriñ bi ci bis boobu yi nga xam ne bisub njàqare la di bisub tiis bu mag ndax ñi nga xam ne ñoo nekk nag sëriñ bi booba jaaxle nañ lool te noona rekk la war a demee ndax loolay li war Sëriñ Tuubaa nag dafa doon yonent bi sallallahu alayhi wa ci léppam loola tax na ba misaal may xew ci dem ak yonent bi fàww lu mel noona xew ci dem ak Sëriñ waaye li ñu bëgg a wax foofu rekk mooy xam nga ne yonent bi dafa génn àdduna ci bis boo xam ne bisub tiis la lool ñi mu àndaloon ñu ci bare bari xamatuñu ci lu ñu ne ndax ku mel ni Seydina Omar ibnul Xataab dafa taxaw wax ne li xew ku mu njëkk génn ci gémmiñam mu faat la kon kooka moom tàggoon ak sagoom bu wér Seydina Ali ibn Abi Talib moom mënatut a jóg taxaw sax far Seydina Ousmane amatul kàddu gu mën yëkkati waaye yàlla subhanahu wa taala faw mu def mbër moo xam ne mooy taxaw su jafeñ-jafeñ amee keroog Seydina Abubakar rek moo am sago misaalum Seydina Abubakar moom mu nag ci sago ja mën nañ ne mooy misaalum Cheikh Mouhamadinil Moustapha ci taxawaay bii nga xam ne taxaw na ko ginnaaw sëriñ Touba ndax su fekkan ne ba mu ñëwee dafa tiit wala mu ñànki wala mu wane dara keroog la mu bëggan lépp te sëriñ bi dénkan ko ko te mooy jële ko njaareem indi ko Touba du mën a sottee noona walla suy sotti jafe-jafe bu rëy dina am waaye mat gu mu mat ak fit wu mu am ak dal gu mu am moo tax ba mu waajal ko nam ko waajale mbokk yi nga xam ne ñoo ko waran taxawu mu woo leen ñu taxawu ko defar ko ba mu sell bunt boobu nga xam ne moom la dagglu woon ñu jaarale ko fa indi ko Tuuba te jàmm rekk xew loola la ko waral mooy xelam mu rëy fitam mu rëy dalam gu mat sëkk ci moom noonu la taxawu sëriñ bi ba jële ko njaareem ba indi ko Tuuba sëñ bi mu ne kon wax nga taxawaayu Cheikh Moustapha ci fidwa ak waaye ak jom ji mu ne loolu doon na lu tiis ñu ne la sëñ bi jóge na fi Cheikh Moustapha ñëw taxaw te sëriñ bi dénkoon ko ne soo fi jógee mooy nag mu yóbbu Touba ban taxawaay la Cheikh Moustapha def ba indi sëriñ bi Touba. taxawaay bi mu def day mooy jëfandikoo am xel mhm. moo xam ne mhm. toujours mhm. daf daan wax ne su ma juumee ñu bari dinañ juum. ndax am naa fukki gor yoo xam ne sëriñ Touba rekk kay tax may toog ci kaw ñuy toog ci suuf bala maa def dara wax ak ñoom di sëriñ bi nag bàyyikoo na fi ñi mu sëqal sëriñ bi te ñu nekk njaarim mu woo leen wax ak ñoom ca loola waaye itam ñi nga xam ne jamono jooju ñoom ñoo war yor wàllu àdduna bi te ku nekk xam na ne booba réew mi ci moomeel ak tubaab yi la nekk mu wax ak ñoom ca loola fekk na xam nga ni sëriñ bi doxalewoon na digganteem ak ñooñu sëriñ ball Coro sëriñ Balla Coro moomu nag la woo ngir commandant mu mën a wax ak moom ca loola ni ko nit ñiy nettalee ñu bare bari te mooy sëñ Mudu kët indi na sëriñ Touba ba mu ëgsi Touba te tubaab yi yëguñ ne sëriñ bi bàyyi na fa loola su ko defan du am aw fit du jëf jëfin woo xam ne jëfinu nit ku amam xel dëgg la. mel na sëriñ bi waaw ndax booba tubaab yi ñoom ñoo koy saytu ci wàll gu ne. kon su ko sàccee noona def ko day doy waar waaye kon sëñ Moodu la mu bëgg mooy lépp day tege ci lu leer nañ loolu nag tax ba mu yeble ci commandant xamal ko ne ko sëriñ bi bàyyi ko fi. bi loolu amee it commandant ñëw na fa ànd na ak ab médecin boo xam ne moom la ko taxan a jóg mooy laab lu leer lu est-ce que li ñu wax noonu la demee bi médecin bi ñëwee xool na ko ba xam ne kat kii moom bàyyi ko na fi sëriñ mu saxaan nag doog a xamal tubaab yi ne leen nag man kat dama ko bëgg a yóbbu ci këram gi ci Touba loolu nag ba mu ko defee tubaab yi ñoom wax nañ ni commandement bi da koo xam ne quoi man kat dama am kilifa goo xam ne mu nga ca ndar dama bëggoon nga bàyyi ba suba ma bind benn télégramme mu jot ci lu ma ci wax ma def loola waaye sëñ mu du xamal ko ne ko loola kat soo ko defee suba kër gi kenn du ko mën a régler ndax ñii mu fi nekkal yëgaguñ ci dara te suñ ko yëgee xam nga niñ demee ci moom mhm. loola it tubaab bi nungu na xel mooma ndax xam na ne mhm. su fi xaaree ba suba leneen mën naa xew ci kër gi kon sëñ Moodu itam geneen wàll gi nga xam ne te Sëriñ Tuubaa jàngalan na ko ko te mooy da koo xam ne ko tubaab tubaab xaalis xaalis bi fi sëriñ bi bàyyi comme mu toll noonu mu attan ko yëkkati teg ci loxoy tubaab yi ne leen fexe leen ba toppatool ma ko ba ba ñuy yóbbu sëriñ bi ba ñu mën a amaat jotu dikk toppatoo loola tubaab yi ñoom li leen jaaxal mooy xaalis buñ xaymawut xamuñ nu mu toll nit àttan koo jël teg ci loxo loola yéem na leen loola tax na ba lu baree bari oyof ci sëñ muudu ba mu mën a jëlee nag sëriñ tubaa foofa indi ko nag tubaa ngir jébbal ko boromam ci këram ko mujj ki kon gi suñu loolu kon mën nañ ne kon wérut ginnaaw loolu bi ko Cheikh Moustapha yëgle tubaab bi ba xamal na leen du ko bëgg andi Touba nan la ko taxawoo ak ñan la ko booleel ak ñan ñoo ko andi Touba. sëriñ bi bi mu fi bàyyi ko xam nga ne mag ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wëran ku mel ni Ahmad At-Tandaki nga xam ne ab noddukat la woon boo bu doon noddal sëriñ bi bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon waajal biñ ko waajal yi nag ba pare kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo àndan ak moom indi ko xëy na du ma mën a teewlu tur yi ñëpp nii waaye li ci am solo rek mooy ña war na ànd ak moom yëpp sëñ Mourou Moustapha jël na ñooña ñu ànd ak moom bi mu ëgsee Touba itam nag ñi mu war a na yeble ñëpp ku mel ni maam Thierno faati ci Daarul Muhti yeble na ca moom xamal ne ko ñëw na ku mel ni sëñ daam Abdourahmane Lo yeble na ci moom xamal ne ko sëriñ bi kët nee na ñu taseeg moom Touba ku mel ni sëñ Mbacke Bousso ku mel ni sëñ Mandoumbe ak kàngam yi nga xam ne booba ñu ngi ci wetu Touba te jege ko ku mel ni sëñ Fàllu mi nga xam ne doomam la woon nekk ndindi itam ñu ñëw toppatoo ko ba jébbal ko boromam. lu jaar mi ngi ndindi. mais njabootu sëriñ bi ku ci mel ne sëriñ Basiru ñeneen ak ñeneen ñu ban jamono la leen fekkoon. sëriñ Basiru njaareem la ko fekk te dangay gis ne euh, booba euh, daanaka nag ñeneen ñi ci des lu weesu sëñ Fallou sëriñ Basiru ak sëñ Moudou Lamine Baara daanaka ñi ci des ñëpp ay tànk lañ yoo xam ne ndax euh, jàpp naa ne booba Cheikh Abdoul Ahad ci fukki at ak ñaar rek lay toll wala fukki ak ñeent kon ña ca des féete ko ndaw ñoom ay ndaw la ñuy doon yoo xam ne xëy na taxaw baag la ca war lépp ñoom loola duñu ca mën a nekk. mu mel ni kon Cheikh Moustapha déplacé na sëriñ bi ba indi ko Touba ginnaaw loolu lan mooy maanaam Cheikh Moustapha ginnaaw mu déplacé bi ndax sëriñ bi ni ma ko waxee woon sànq ci résidence surveillée la ne woon euh, bi tubaab bi yëgee Cheikh Moustapha yóbbu na sëriñ bi Touba maanaam naka lañ dundee ak Cheikh Moustapha. Cheikh Moustapha nag. ginnaaw bi nga xamee ne sëñ bi jóge na fi li ñu njëkk a gis mooy am na ay jafe-jafe te mooy jafe jafey yi ku toll ni Sëriñ Tuba nga wuutu ko ba tax am na ay kàngam yoo xam ne sëriñ bi duyeen na leen bañ fees dell am na gisin wu ñu gis wu wuute ak topp ci ginnaaw Cheikh Mouhamadoul Moustapha waaye euh, loolu li koy firndeel rek soo demee ci woy Cheikh Ibrahima Diop mm-hmm. fekk muy wax ne mm-hmm. afi Mustafa min baadi walidihi shakkun mm-hmm. fa lam yakun lahu almulku fa liman almulku bi ayi kitabin wa bi ayi lakum al aqsu wa muy wane ne waaw damay laaj ndax ginnaaw xadimal Moustapha Cheikh Moustapha moom dafa warta doon xalifa walla déet yéen ñi nga xam ne dangeen a gis weneen gisin ndax ci alxuraan ngeen ko teg wala ci sunna ngeen ko teg est-ce que da ngeen a am alxuraan joo xam ne moo leen di tegtal ne Cheikh Moustapha warta am cër bi yéen yéen a ko war a am kon loola di la won ne kon am na jafe-jafe bu am nag boo xam ne faw kon mu jéggi jafe-jafe yooyu ngir fexe ba mission bi muy dox mu matale ko loolu nag nam def ba jéggi ko mooy xam nga olof dafay wax ne mhm. nit ñëpp kenn mënu leen a boole ci menn mbedd mhm. nee na Cheikh Moustapha ankay ah, ñu ne ko lan la mu ne mbeddum teraanga lañ leen di boole mhm. ndax as gor ku ko teral rek kër nga ko kon loola di la wan ne teraanga jëmmu leen ji tax na bu mujj ñu baree bari xam ne kat yëf yi fii la ba am na ko woy ne bu ma doon bañit nangu naa ñëw naa ci yow àgg ba ci Cheikh Moustapha bu ma toppee lëf bu ma jàppee lëf kon loolu di la wane ne Cheikh Moustapha ci teraanga rek la leen moomee ba taxaw taxawaay bu am solo boobu léegi nag mu war a jóg nag ngir taxawu nag liggéey liggéey booba nag la ca jiitu mooy taxawaay bi nga xam ne am na ko ginnaaw sëriñ bi ci kër gi te mooy xam nga ne kat lislaam moom lëm tëral muy sharia ki fi bàyyi ko saa yu fi bàyyi ko alal ji mu moom kenn sañatutaa def dara lu dul moom moomatu ko léegi dono yi rekk ko moom kon bis bi nga xamee ne ci la ñu jébbal sëriñ bi boroomam ba delsi wax nañ ne lañu ñu njëkk a def mooy dañoo wax ne njël li nga xam ne sax moom moo nekk ci kër gi tey jii sëriñ bi moomatu ko kon dañoo war a yoonal mbiram waaye ci njàmbaar ak Seex Musaa ak xam ne lii yan bi ñu yenan sëriñ bi moom moo ko yenu ndax nag sëriñ bi yan ba dafa diis ndax sëñ Moussa Ka da ko wax ne ko yenn ba ñu yenoon xutbu yaag ab daale te attanuñ ko moo ko fab raw gaaya te ngëñ di te tawatul balaaya suuratul laxwaani laam ci laaya loola moo tax ba sëriñ bi yen boobu mu yenneeku yenn ko sëñ Mouhamadou Moustapha faw yen boobu diis loolu nag tax ba kon mu ne moom comme dund mënta ñàkk ci kër gi faw nañ ko jaay moom dund bi mu féetewoo wàllam ba pare jox ko nag waa kër gi ñu di ko jëfandikoo kon taxawaay boobu mooy bi njëkk Cheikh Moustapha taxawu ko dolli ca nag ummahatul diin xam nga ni yàlla waxe ne yonent bi yéen kët soxna yonent bi seeni waajur lañ noonu la njabootu Serigne Touba googu nekke waajur ci murid yëpp ñooñu it mu sange leen ku ci nekk la war ci yow mu di ko def ci taxawaay bam ca paree nag la jublu ci mbokki boppam yi te mooy ñi nga xam ne dañuy tudd Sëriñ Tuubaa di ko tudd ñi ci war a dal jàng te tollu ca mu taxawu leen ñu dal jàng ñi nga xam ne ña nga woon ca daara ja di jàng te war a toll ci xam-xam mu jàppale leen ba ñu nekk ci njàngam xam-xam mooma waaye itam ñi ci war a samp kër mu jàppale leen ba ñu samp seeni kër la ca yéeme mooy war ma jëm leen joxoon nga xam ne la mu daan wax mooy yéen sama doomi sëriñ ngeen loola nag di bind boo xam ne ku ci nekk mag ci kër war nga cay jàngat bu baax a baax ndax moom defu leen ñum bokkal ñuy ay doomi baay waaye lëm leen di wax mooy sama doomi sëriñ ngeen ba li nga xam ne soxna may munatu nettali na ko ci te mooy da daan ñëw ci moom su même jëfandikoo ñam sax suñ ko defee ba pare mbubbam la daan jël yëkkati jox leen ñu ciy fopp seen loxo ba soxna may munatu doon wax ne su fi jógee day dem danaan suñu taalibe baay beek baax te fekk ñoo bokk xadimal Moustapha waaye wàcce gu mu wàcce boppam suufeel gu mu suufeel boppam jox leen cërëb sëriñ Touba bi moom jël taalibe gi moom di ko jëfandikoo loolu la sëñ Mourou Moussa defan ci seen diggante boobu ngir man leen a satisfait man leen a defal lépp lu ñu bëgg ba xam nga ne euh, nettali nañ digganteem ak Cheikh Mouhamadul Fadal nga xam ne diggante bu rafet la boo xam ne ba bi muy sanc taayif sax bi sëñ lu ñëwee da ko ne yow tudd dëkk bi ca ba itam yooyu yaa taifan yaxsha نوائب الدهره لذ بالخليفة المصطفى بالطائف مأوى الأرامل والحفاة جميعهم ما بين راج منه mu aw xaaif di wane ne moom relation bi mu am ak sëñ Fallou relation bu rafet la du relation bi rek doomi baay waaye doomi koo xam ne ab sëriñam moo ko jur loolu la sëriñ Modou Moustapha doon doxe ak sëñ Fallou ni la melen ak sëñ Mouhamad Lamine ndax sëñ Mouhamad Lamine moom ñoo bokk soxna si lépp ñoo ko bokk rawatina nag sëriñ Bachiru muy ñi ci magoon ndax foo déggee magi bas rek sam xel day daal dem ci sëriñ Bachiru kon seen ab ànd rafetal na bu baax a baax ñi ci féete suuf nag nga xam ne ñoom euh, ci taxawul leen la nekkoon da ngay xool la dalee ci sëñ Abdoulaat ba ci sëñ Mouhamadou Mourtada est-ce que xàjjatle sëñ Muudu ak sëñ Mamadou Lamine Baara ak sëriñ Bachirou sëñ Fallou ci yarin wi nga xam ne moom la leen sëriñ Touba yar ak yarin wi nga xam ne moom la sëñ Mourou Moustapha yar ñii parce que mën nga koo xaajatle soo xoolee rek da ngay gis ne ñoom ñëpp lenn lañ kon la sëriñ Touba defan ca moom rek moom la jiyaat ci ñoom ñi ci wàllu taxawaay boobu. kon Cheikh ginnaaw bu responsable duggee ci ay loxoom mooy bi digg ci sëriñ bi fan la daay tàmbalee rek taxawu ay rakam li ko tàmbalee ci ki ci mag ba ci ki ci gën a doon ndaw waaye buñ sëriñ bu jógee fi bàyyi fi ay rakk ma ñooy tuddu ku mel ne maam Thierno ku mel ne maam Cheikh Anta ma sëñ Massamba euh, ñoom ñëpp sens fa nan la mën taxawoo yoon wi te fekk fi ay waajuram yu toll ak nañu feese woon seen dikk ak seen boroom waaye digg ak sëriñ bi tey ñu bokk ak sëriñ bi waajur. waaw Cheikh Moustapha ca xel mu rëy ma la jëfandikoo te mooy li am solo mooy. nit ki xam lu mu war a def xam kañ la ko war a def ak fan la ko war a defee ak nu mu koy defee loola nag la Cheikh Moustapha xamoon mbooleem ñooñu nga tudd ñëpp di ay waajuram da doon xool ci ñoom ne Serigne Touba mu taxaw moo nekk nii ba tax na gis nañ mu àgg ci nit ku bàyyi ko côté njàmbur ëgsi ba ci moom jox ko addiya mu ne la xanaa romboo baay cerno nga ne ko hankay mu ne la dellool ci moom yóbbu ko addiya jooju ku jógeeti foofu jarul ngay ëgsi ci man man ngaa yem ci baay cerno soo jógee wàllu bawal maam Cheikh Anta nga fa loolu la la cay wax ñeneen ñi ci des nag ku mel ni sëñ Massamba moom la mu defan moom mooy dafa jël boppam jébbal Cheikh Mouhamadou Moustapha te it war ma jëkku Cheikh Mouhamadul Moustapha joxoon ci màggalug daarul xudus gi xëy na suñ ci dikkee dinga gis ne keroog bi mu dajeek moom ci jumaa ji te ñu indi ñaari toogu yooyu ngir toog sëñ ma sàmba ëgsi toog ci suuf cër ba ko sëñ Moussa delloo mooy moom itam toogu ca kaw ci suuf la toog ni moom kon loolu dalay won ne moom sëriñ Touba la doon xool ci ñooñu nga xam ne ñoo bokk ak Serigne Touba li mu yoroon ci lu ko yàlla sédde muy alal da ko daan bokk ak ñoom di leen ko jox attan na leen koo jox sax moom ñàkk waaye du tee da leen koy jox loola nag mooy tagg wa yàlla doon wax ci alquran ne wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasoosa ñi nga xam ne dinañ joxe te lañuy joxe ñoom ñoo ko gën a soxla nit ñi waaye teewut ñu di ko jox kon moom daal war ak joxeb cër ak xam ne ñii sëriñ Touba ñoo bokk sëñ moor Anta Sali noonu la nekk nag ñoom ci suturaak worma ak di leen teral jamono ju nekk moo tax ba dara xewut lu dul rekk jàmm ci seen diggante. jërëjëf kon daal Cheikh Moustapha ak nite la jëfandikoo ba mën a dayale yoon wi ci benn kanava beex ci lañ nekk ba fi fii weesu tey jii bu ma leen digal yi sëriñ bi xawoon na di ci moom lool ci jamono boobu ndax ginnaaw andi gi Touba ginnaaw taxaw ay rakkam ku nekk ku tudd da nga tudd jumaa ji taxawal taxawal jumaa ji. diggam ak euh, nasaraan si mooy tubaab si nan la jëfandikoo ba mën a taxawal liggéey bu toll jërëjëf euh, xam nga ne Serigne Touba day fu mu mës a dëkk ci àdduna Touba ko ko gënal fu mu mës a nekkit bari na lu muy feeñ lool ci ay mbindam ñaari dëkkam yi di Daaru ak Touba. su dee Salaam mooy dëkk bi mu njëkk a sancal boppam moomal ko boppam su dee Touba nag mooy la ko taxan jóg mu di ko wër ba yàlla may ko ko la ca gën a yéeme nag mooy bi ko ko yàllay may at mim ko ko maye ci la ko maye sëñ Mouhamadou Moustapha mu feeñ jamono ci 1888 bi sëriñ Touba gisee loola muy Touba ci la sëñ Moudou Moustapha feeñ jamono kon mu mel ni dëkk beeg sëñ Modou Moustapha faaw ñu neex Serigne Touba kenn mënu ci dara faw rek ñu neex Serigne Touba ndax lii la doon wër loolu nag bi mu amee ndénkaan yi mu ko dénkan muy indi Touba gi wax nga ko léegi góor góorlu na nag ba mu am waaye taxawal ko jumaa xam nga euh, mag ñi ku ci nekk ak saw doxin euh, ba nga gis ne ñii shariat kese rek lañ doon dund ak sëriñ bi ñii léeg-léeg nga jàpp ne ñoom ak daanukate rekk lañuy ñuy doxe ku mel ni sëñ Mbay Sarr wax nañ ne benn bis day tëggu di ñëw njaareem bi muy tëggu di ñëw nit ñi ne xanaa Mbay Sarr day ñëwateeg dëndëm yi xam naa am ci ñooñ gisewuñ tëgg ma ci ñoom loo xam ne xëy na luñ rafetlu la waaye ba coow li àggee sëriñ bi da leen a wax ne mag su dañee réer dañ koy laaj lu tax li muy def lu tax mu def bi sëñ bay Saar ëgsee mu laaj ko ko da ko ne a ah, danga xare ba daan bàkku woo ma di la bàkkul waaye wax nañ ne sëriñ bi da ko tontu ne ko Babacar naa bàkku bàkkoo jotagul sama jumaa ja ca Tuubaa su soororee taxawee keroog lay bàkku kon mel na ni jumaa jooju sëriñ bi ñoroon na ko lool xam nga ne bi mu fiy nekk tubaab yi mayeen nañ ko autorisation tabax ko mhm. waaye bi mu demee ba yàlla dogal li mu dogal mu bëgg fee bàyyi ko woona sëñ mudu dénk ko ko te mooy xamal na ko ne ko jumaa ji kat sama loxo damm na ci waaye yow it nag nanga fexe ba sa loxo dàmm ci mhm. kon benn sëñ mudu moom la mu gëman mooy jumaa ji ci kaw rek wala sëñ mudu nekk ci suuf waaye jumaa yi sëñ Tuubaa moom du nekk mukk ci suuf sëñ Moodu di taxaw ci kaw kon engagement ba mu jël mooy faaw rek jumaa jooju am loolu nag tax ba mu doo mu jóg nag ngir fexe nu jumaa ji amee ndax bi sëriñ bi euh, làqoo rek tubaab bi autorisation boobu dañ koo daal di nanguwaat léegi nag sëñ Moodu jóg a jóg nag def ay démarches ngir ñu autorisé waat jumaa ji ci lay doxe ñu waat jumaa jooju ko autorisé ba pare nag tubaab yi dañ caa gàllaat ay gàllankoor te mooy xamal nañ ko ne kat jumaa ji naa mën nañ koo tabax waaye nag faw ab raay ngay am boo xam ne moom mooy yóbbu matériel bi Touba ndax yoon wu baax sax wu oto mën a jaar amul diggante njaareem ak Touba wala boog oto sax bu toll noonu dayo jàpp nañ ne moom mënuñ koo am ngir mu yóbbu matériel bi waaye bañ waxee sëñ Modou loolu mu ne d'accord na dina fexe amub raay bi tegal ko ci ne ko nag lu mën a xew mooy yéen kat seen mbir da ngeen koy gàll ci ndey mooy am nawet te nawet nag léeg-léeg day nongu léeg-léeg mu gàntu suñ mbir nag lu duñu ko gàll foofu kon daal da ngay fexee dajale alal joo xam ne soo ko dajalee ñu def ko ci banque bi suñu bëggee liggéey mën koo jël liggéey sëñ du fexe ba loola am loola nag bañ pare nag doog a sóobu nag ci ne ko raay bi xamal ko ne ko nag raay boobu day junniy nit ak juróom fukk ñoom ñooy ñiy saytu liggéey boobu teyit nag teyit nag du ñu junni junniy nit ak juróomi junniy nit ak juróomi téeméer ñoom ñooy saytu liggéey boobu teyit du ñu lekk cere akub rek waaye ceeb lañuy lekk boo xam ne day ànd ak ndawal te it du ñu liggéey comme ni murit a liggéeye mooy rek liggéey dem waaye dañ leen di fay ku ci nekk kon loola wan wan na la ne ba tey tubaab yi gàllankoor googu jóguñu ci waaye lépp lu ñu wax rek sëñ Mudu ne d'accord na ca loola fekk si leen ca loola mu jafe woon nag lool ndax sëñ Mudu bi mu laajee ay nit bari na ñoo xam ne seeni nit demuñu ca waaye teewul nag murit gi am na ci ñoo xam ne lu sëñ mu du nekk rek ñu nekk ca loola ba mu dajale nit ñooñu ñëpp fay gi it mu ànd ca ñoom dajale xaalis bu mën a def loola ba ni ñu tàmbalee gasraay bi bi ñu ko tàmbalee gas itam la ca xew mooy yàlla ci boppam soo ko nekkalee mu nekkal la ndax dañoo mujj dem ba gis ne koomam réew mi daal daa mel ni léegi mi ngi ci gatum raay bi ñi bëgguta na bokk léegi ne siiwa bokk ci raay bi bay ciy jële dara waaye fekk loola mënatuta nekk waaye sëñ góor góorgóorlu taxaw ba ni raay bi ëgsee Touba ci 1931 kon loolu dalay won engagement boo xam ne moom la sëñ Modou am loolu nag li ko ko may mooy alhimma te muy itte ju kawe xam nga waajuram wa sëriñ Touba radiyallahu anhu ca Mbàkke Kajoor ja dafa waxan ne shaafahani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bee wax ak moom ci tuñ ne ko rabbi azhabaka bil ximma wala turabbihim bi darsi faqat yaral sa nit ñi ci yitte ju kawe waaye bu leen yar ci njàngam kese euh, euh, sëñ Sàmba na yàlla yokki leeram am na ku ko mas laaj lan mooy himma mu ne ko himma day ni ko sëriñ bi firee mooy dangay am yitte ba àgg ci lawxul mahfuz su te yàllay bind kii kii ja xalima ngay def nga di ko dégg kon loolu nee na dëgg dëgg mooy himma muy yitte ju kawe kon yitte ju kawe jooju ci diggante sa boroom waaye yitte ju kawe nag ci liggéey ñaar yépp la sëñ muuru boole woon ba tax ngasum raay bi mën a am ba ni mu ëgsee ñi ma ko àndal ñëpp ànd ca ak moom ba ci Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne moom juróom-ñaari téeméeri nit moo ko ca joxe wëlbatiku ñëwaat ca ngasum raay ba moom ci boppam barkeelu ca doog a wujji boromam sëñ bi. buñ doon wax nite am mbubb la kon Cheikh Moustapha ko sol taxawaay boobu la taxawee muy dénkaani ko sëriñ bi bàyyee woon kon defal na sëriñ bi ak bëggam muy indi na ko Touba taxawu na ay rakkam ba jooyuñu seen way jur nekkoon waaye ndigal la ko bàyyee woon muy tawaxal jumaa ji tamit. macha allah ni ngi ci ñëwee xam naa yeneen jotaay dañ ko gën a yaatal euh, waaye bu ñu lay indi Tuubaa gi moo tax ñuy fàttali ko bis bi ñu dëngbal di seen Muharram xam naa nga ñëw ñun ci ak jeexal rek euh, Cheikh Moustapha ginnaaw bi sëriñ bi demee nag ak euh, fàttali ko bis boobu di seen Muharram. sëñ Moussa Ka dafa am lu mu wax ca xasida ga day wax ne noble bu engagé ba xeex ca guerre ba niroowul ak civil keroog peyoor ba mm. soldaar bi dem rengagé wu ñu yóbbu ko mu xeexi ca forme ba dikk war a tàllal loxoom ñu fay ko su civil dof dofloo ba dem taxaw rang ni moom ku mayut la mu fay jëlee du neex sëriñ bi nag bis bi day bis bi nga xam ne bi gënal sëriñ bi ci bisam ci la ndax sallallahu alayhi wa sallam da doon ñaan yàlla ne ko maa ngi lay ñaan bis bi gën ci samay bis muy bis bi may dajeeg yow Serigne Touba dafa donn yonent bi ci laala kon bis bi gënal sëriñ Touba ci ay bisam mooy bis bi nga xam ne moom la daje ak moom wax nañu sëñ nag dafa toog benn bis boo xam ne fii ci Daarul Xuduus euh, dafa laajte Serigne Massamba bi mu laajtee ma sàmba ñu xamal ko ne ko dafa génn biñ ko ne dafa génn mun digle ne nañ ko ko dabal ba fu mu ne ñu ne ka ah, weti njàmbur de la aw wax nañ ne bañ ko dabee ñu ngi ko fekk wetu njaañum njaga mu woo ko leneen sëñ ma sàmba keroog bi nga xamee ne dafa waññeeku di ñëw ci sëñ muudu bi muy ëgsi ji Tuubaa guddi na wax na ne ci jumaa ji la jubal rek moom fanaan fa xoolal goog taalibe goog joxeb cër mm-hmm. moom li fekk xamul li ko sëñ muudu yi doyee du àgg këram ñun nag ku ci sëriñ woo tey nga dem fekkoo ko fa njàmbat bëgg laa rey waaw sëñ bi nangam sëñ bi nangam dem saw yoon te kat su dee ci wàllu kilifteef ci wàllu waajur da gis ne sëñ ma sàmba waajuram la waaye ci wàllu nag xaqiiqa gi nga xam ne moom lañuy dund sëñ muudu itam moo fi nekk sëriñ tubaa tey mu jox ko cër boobu bi sëñ ma sàmba ñëwee nag ci suba si nee sëñ muudu dafa ubbi laajte ñi nekk ci jumaa ji ñan lañ ñu xamal ko ne ko sëñ ma sàmba day guddee fanaan fa mu wax ne nañ ko ko wool biñ ko ko woolee ba mu ñëw wax na ne sëñ muudu ci boppam moo génne aw kayit jàng ko won ko sëñ ma sàmba bi ko jàngee won ko ko nee na sëñ ma sàmba dafa wax ne moom da ko fàtte woon nee na sëñ muudu ne ko ah, yaakaar naa ay shuruuna muharram mm-hmm. la la waxoon xamal ne kon ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi nekk nañu dem ci jumaa ja te xaar ko sëñ ma sàmba dem ci jumaa ja moom laa la doon wax léegi mhm. bi ñu indee ñaari toogukaay yi nga xam ne teg nañ ko sëñ ma sàmba bi mu ëgsee moom dafa toog ci suuf sëñ Muudu ñëw taxaw toog tiim ab toogam bañ cee toog ngir warmaal sëñ ma sàmba ñàkk a toog gim ci ñàkk toog mhm. wax nañ ne kayit woowu bi sëñ Muudu ñëwee da ko tàllal ci xibla gu nekk mhm. penku sow saalum ak gànnaar ba ñépp gis ko mu yëkkati nag ay kàddu xam le ne sëriñ Tuubaa moo ko sant ne ko jamono jii su dikkee na ko dajalee ay mbooloom wax nañ ne keroog euh, ku ñuy wax Ibrahima Sare su sëriñ mu du waxee moom mooy jottuli ku ñuy wax yi moo yëg ci kaw su Ibrahima Sare moomu jottulee mu jottuli ndax mbooloom mu bari moo xam ne teew nañ ci jumaa ji mu wax ne sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu moo ko waxan ne ko kat bis bi su dellu seen na ko dajaleel mbooloom wax na it nag soxla wut alal ju ñuy indi waaye ruu yi la soxla biir Tuubaa comme ruu yi la soxla biir Tuubaa nag loolu moo tax mu bëgg ku ci nekk nga ñëw Tuubaa ngir xam nga ne sëriñ Tuubaa ci tukkiim bi fépp fu mu nekk daanaka ahlu badr ànd nañ fa moom bi muy départ jeewal asiru ma al abraari xiina asiru wa wanna al ayda anni hunaka asiru kon abraar yooyu mu àndalan muy waa ahlu badr jundulahi al azam yi mu daan àndal fu nekk ñooñu su bis bi delsee dañuy ñëwaat ci tuubaa gii ci Sëriñ Touba loola nag tiyaaba ju toll noonu la sëñ muudu yéene ba su xewee nu suñ fekkaat fi ak nun nu jaxasoo ak moom ngir yàlla jégal ñu tey nag sëñ muudu da caa wax lu am solo ndax wax nañ ne nee na képp koo xam ne yàlla dogal na jant soye la fi ci lu neex yàlla fenk la fi su lu neex yàlla mel nga ni keroog nga gane jamono ci sa waajur lu jiitu loolu setal gi mu doon setal rek daarul xuduus di digle ñu bale ko wax nañ ne daan na wax ne su ma génnan yor ak bale day nit ñi dañu ciy jàpp ba mu nuru njistal waaye kon ma def ko waaye bu ñu balewaan ba pare nag ba lay jal yi ba bàyyi daan na génnal boppam di tasaare jal yoon ak ab tànkam waaye wax rekk ci mbale moom ne ku fi setal foo xam ne am piccam pérantal mën na fa buuf ba fanaan fa mooy sa kër ci aljanna kon màggal ak daaru xudoos dimension bi dëgg-dëgg yaakaar naa ne nit ñi xamuñu lan la njéggaluk bàkkaar ci mbooleem bàkkaar bu mas a def yàlla jéggal la ko te nag njéggal dong la ñuy eh, wut ndax ku yàlla xas jégal aljanna rek ngay jëm sëriñ bi. jërëjëf sëriñ Fallou mu mel ne kon bis boobu la ñu dëgmal muy guddi kan sëriñ Maram di bi sëriñ Touba dëkkaaleeg boroom Cheikh Moustapha di ko fii ci Touba. waaye dégg ngeen sëriñ Fallou taxawaay bi nga xam ne Cheikh Moustapha taxawee na ko ginnaaw nekkuk sëriñ bi xam naa kon foofu la ñuy tàggatoo nga tàggatoo ko mbokki ni seetaan ba bi la yoon sëriñ Fallou ñu ngi eh, jéggalu ñëpp nag mhm. lépp lu ci waddu ci njum te ñu xam ne a euh, mattadik doomu aadama la waaye euh, mat gi rek la ñu jublu woon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mbokk yi ni seetaan kon bis boobu la ñu dëgmal guddi asrata maram ñu di ci woo fàttali ñëpp waaye di ci seenu ñëpp di ci woo ñëpp waaye xam ngeen tamit bis bis bi ren dafa tombeek li nga xam ne moom moo xew ci àdduna bi muy am mbas ku nekk dégg na ndigalul sëriñ bi ni mu ko wootee muy képp koo xam yaa ngi ñëw nga sàmmonteeg li nga xam ne moom mooy eh, digal yi nga xam ne moom moo bàyyi ko ci kër docteur eh, ba feebar bi bañ a law ñu koy dënk ñëpp di ko soñ ñëpp di ko fàttali ñëpp di taxawlu foofu ci yeneen jotaay incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu